sab taalibe di jàmbaar joo xam ne danga naw jëfam ci Serigne Touba ba tax nga ne ko yaay gayndeg Serigne Touba di gayndeg Serigne Baara di Cheikh Mouhamadul Bachiru moom sëriñ Xaadim Awa Ba moom Cheikh Mouhamadul amiin ñëw ànd ak mbooleem njabootug sëriñ Touba gi la tàmbalee ci kër maam Thierno Ibra Faati kër maam Cheikh Anta Cheikh Mandumbe Xabaan kër Sëñ Bakke Kajoor mbooleem kër gu ci nekk dafa tànn kenn koo xam ne naw na ay yitteem naw jëfam naw ak bëggam ci Serigne Touba. ànd ak gone yi nga xam ne ay doomi seex lañ seen maam yi ak seen wayjur yi toppoon sëriñ tubaa di sàkkuy ngërëm ba sëriñ bi fayee leen ñoom seen jëmm yi ñuy kenn ku ci nekk mat na boroomub dëkk kenn ku ci nekk yilif ak njaboot kenn ku ci nekk yilif ab barab bu ay nit di liggéeyee ñu ñëw di la siyaare te di sàkku ñaan di la siyaare si ci bis bii nga xam ne amuloo lu dul moom ndam lu ñu am ci lislaam ginnaaw yàlla ak yonent bi liggéeyu sa maam ju baax jii nga taxawal ab ab liggéeyam di soxna jaariyatullaahi buso Cheikh Mouhamadul Basiru ñëw na ànd ak mbooleem njabootug sëñ Tuubaa gi ak mbooleem seex ak mbooleem doomi liggéeykat yi ne ci réew mi di ànd seeg yow sa bis bi te di la sant bu baax balay sa ci sab taxawaay te di la ñaanal nga ña nga yàgg fi lool te ànd ak wér ba mbooleem yéenay liggéeyi sëñ Tuubaa ji nga am nga def ko nu kawe sa njort moom mii nag ab taalibe rek la di koo xam ne fu mu nekk sa yitte ak sa ndigal rek ko fa bàyyi di boroom jikko ju rafet di koo xam ne mbooleem këru diine lislaam yii ci Sénégal la tàmbalee kër maam Abdoulahi Niass kër maam Seydil Haaji Malick kër limaamu Mahdiyullahi lépp lu xew ci lislaam sët yi ñu ànd seen maam yi daan liggéeyal Serigne Touba ak doomi magi murid yi nga xam ne dañoo liggéeyal seen bamba seen bàyyee ba Serigne Touba fayee leen ay doom yu jàmbaar day ànd ak ñoom mbooleem luy teraanga joo xam ne gis na nga di ko def ci lislaam balay sa ma ngi koy jëf te di la ko royee te amu ci lenn lu dul di wane kenn Serigne tubaa gi ko yàlla kennal yàlla tànn gi sama borom tànn sëriñ Touba ba noppi tànn aw nitam loolee ci la sukkandiku mu xam ne lépp luy sa bëgg dara jiituwuti ak jub ak jàng ba noppi di jëfe sam jàng muy koo xam ne daaree kokki ji am na ci taxawaay boo xam ne moo mook sa njabooti taalibe yaakaar naa ne loola lay sa bëgg guddeeg bëccëg subaak ngoon mooy lu yëkkati ndamul sëriñ Touba te du dara du alal du du ay taar du kër du matériel ak jub rek lañ mën a def ne bu ñu ko defee bu ëllëgee dinañ noppal sëñ Tuubaa te nañ dajeeg moom Cheikh Mamadou Bassirou ba mu xamee loolu ba fi may waxee ak yow day tànn xeeti nit ñi nga xam ne am na ci ñoom yaakaar ca ñooña ñu yóbbu ko Mbakke ñi ngi lay ñaanal yal nañ la fi yàgg a fekk te yàgg a ànd ko te di la sant bu baax di ko santale bàjjanam soxna Baalim sëñ Muntaxa ci taxawam ci taxawaayam ak ci jàpp gu ko jàpp te yow rek nga tax li nga bëgg ci sëñ Touba bëgg ko ci yoon wi bëgg ko ci lislaam yal na la ko Cheikh Ahmadou Bamba defal te nga dalal sam xel bu baax ci taalibe yi dara du yàqu ballay sa li nga bëgg mooy ndamul lislaam mooy ndamul Serigne Touba ñun amuñu président amuñu opposant kenn rek la ñu am muy Cheikh Ahmadou Bamba te yaa ko fi nekkal ñun ñëpp ñu ngi ci sa ginnaaw di la déglu ba addunay tukki doo ñu dégg mukk ci loo ñu wër sa dégg du ñu wax ci rajo du ñu jàmbat ndax fii ñi fi nekk ñëpp kenn ku ci am naqaru adduna amut te mbaaleem ku yaakaar sëñ Touba tey jëfe say ndigal di bàyyi say tere am na tawféexi adduna te bu ci saxee te wàcc ko boo léegi dana am tawféex tawféex mooy dajeeg Serigne Touba réew mii nii mu mel dalalal sam xel balay sa dalalal sam xel ci Sénégal ndax lebal nga Sénégal loo xam ne ba nga koy leble ñii fi nekk tey feeñaguñu ci jamono liggéeyal nga Sénégal juróom benn fukki at te waa tey ñëwaguñ xanaa sa jëf yu yàgg ya daaw dañ koo fàtte xanaa nii nga taxawoo lislaam taxawoo ko Cheikh Mouhamadan faadal taxawoo ko Cheikh Abdoulaye taxawoo ko cheikh Abdoul Khadir taxawoo ko sa baay ba Serigne Saliou taxawoo ko cheikh Mouhamadou Lamine Baara taxawoo ko cheikh Sidil Muxtaar ay cheikh Mouhamadoul Mountakha ñun buñ la fayut ci muñ duñ ay gor duñ ay jullit te ku ci faatu da nga dajeeg da nga rëccu loo doon dajeeg Serigne Touba ndax ñun day dafa ñu dara lu dul war laa sàmmal sunu ngor war laa sàmmal liggéeyub Serigne Touba bii kenn waru ñoo dégg ci lu dul noonu amuñu président benn président la ñu am te mooy yow waaye na la murid yi lu ñu bëgg lislaam bëgg nañ ko Cheikh Ahmadou Bamba lu ñu bëgg Cheikhul Khadim bëgg nañ ko yow rek la ñuy déglu amul kenn ku fii farak kenn ñun yow rek la ñu àndal dalalal sam xel dinañ soññ daayira yi danañ def ay visite proximité dugg ci taalibe yi wax ak ñoom ba li bëgg muy ak daal moo am ci réew mi wasalaamaaleykum wa rahmatulah. de sëriñ bi nee na sëriñ bi. ba waxtu wi jotee. ba waxtu jotee. fekk ko ci biir gaal gi. ko ci biir gaal gi dafa fab daram. dafa fab sànni ko sànni ko. te kii. te mooy suñu royteef. mooy sunu royteef. mooy sëriñ Tuubaa. mooy mooy sunu adduna. mooy sunu adduna. mooy sunu alaxira. mooy sunu alaxira. bëgguñu. bëgguñu nammuñu. nammuñu xamuñu. xamuñu xooluñu. xooluñu seetuñu. seetuñu ku dul yow ku dul yow. bëgguñu ku dul yow. bëgguñu ku dul yow li arab di wax ni ra'su maalil mar'i salaamatuhu li fondement capital doomu aadama mooy mucc mucc googu yàlla na ko yàlla na la ko yàlla defal na ko yàlla defal ndax yow sa bët yii sa yi dañoo xër di joxe loxo nee na dañoo xër di joxe loxo waaye rab woowu ñuy wax un waaye rab bi ñuy wax un nga xam ne day xool ay doomam nga xam ne day xool duñu xiif xiif bu nu bu nu xiifoon bu ñu xiifoon bu leen xoolee ñu rek bu ñu maroon bu bu leen xoolee ñu mandi bu leen xoolee koo xool yow koo xool doy na sëkk doy na sëkk dañoo xër rek dañoo xër rek di raj raj loo bëgg laa jox loxo bëgg laa waaye yow say bët waaye say bët ku yàlla nar dimbali ku yàlla narta naru koo xettali yàlla naru du jàkkaarloo ak moom jàkkaarloo ndax yaral xafaaya bi aynil qalbi zahiratan kama yusahidu ma taxta lakinaat li ngay xam li ngay xam di ko yëg di ko yëg di ko xam ci doom aadama bu ko nit ñi doon xam bu ko nit ñi doon xam danañ def attention bu baax danañ def ci sëñ muntaxa wallahi alazim ndax sa toogaay bii ndax ko liggéey liggéey de danga ngaa tarbiyewu say waajur. da ngaa tarbiyewu doy na ci. doy na ci seet wax waxuma Serigne Bassirou. waxul Serigne Bassirou waxuma Serigne Abdou Lahad. waxul Cheikh Abdou Lahad. waxuma Cheikh Mamadou fi mujj. waaye Serigne Moustapha Bassirou. boo daan toog ci wetam. boo position bi nga tooge position bi nga du wëlbatiku. du soppeeku. du bu doon 24 heures. bu doon doo buuse. fii nga toog kon fii nga toog tey. nangu nangu nangoo toppe gëm sëriñ bi wóolu ko liggéeyal ko tarbiya ko moo tax yàlla tegal yàlla nga fi yàgg ba ñun dañ lay bëggee dañ la dañ lay bëggee dañ lay tiitaroo te lii ñu lii xew ci jamono muy xam-xam ku ci yor aw araf jàpp ni xam nga lépp amu ci kenn koo xam ne agsi na la ci wewu tànk la ci xam-xam waaye lépp nag waaye koo fab da nga koo taalibe tënkee yàlla nga fi yàgg yàlla yàlla na yàlla guddal soo fan yàlla guddal sa université bii université bii doy na sëkk ci mébéti sëriñ bi la bokkoon ci ay bëgg-bëggam la bokkoon te yàgg koo taxawal te yàgg ko defal lii banal xuduusu madrasatan biha yasulu aza wal jahl wal kabadu ba ko sëriñ bi di wax université bee taxoon te yaa ko defar yaa ko a tàmbali yaa ko àggale yeneen naal yëpp yëng fa yéene dana àgg da ko fekke ndax wa am ma maa yan fawu naasa fayam ko su fil ardi njariñ li nga am ci nit ñi moo tax yàlla dana la fi bàyyi yàlla dana guddal soo fan yàlla dana la sàmm dana la aar dana la taxaw ndax fii ñu toll jant bii di tiim doomu adama tiimul ku la agsi ci wewu tànk fu mu tiim fa nga toll ci yàlla toll ko ci yonente bi toll ko ci sëriñ Touba tollu foofa kon Mbacke jërëjëf di sàkku nga ñaanal soxna Baali sunu bàjjan sunu xarit di sa bayfaal di sa taalibe ñu ngi sàkku mbakke di dagaan di yalwaan di sakku ndimbal nga ñaanal ko yàlla guddalu fanam di la di di di bég di kontaan suñu xol sedd na lii nga ñu defal rëy na ci ñun ndax temps bii nga ñu jox rëy na ci ñun mbakke wallaahi bu nu mënoon a summi sunu mbubb tekki li ñu am lépp doon ay jaam nga takk buum ci sunu baat dañ la koy jox ndax jëf ji rëy na mbakke jërëjëf sunu xol sedd yal na la fi yàlla bàyyi jërëjëf mbakke